auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mbokku jullit yi mbokku téléspectateurs yi xam ne ñooy suivre Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen bégee di leen safoo tey ñu indi leen gan gu mag goo xam ne miin nañ ko ci diaspora bi rawatina fii nga xam ne mooy diggante Argentine ak Brésil euh, ñu gën kaa xàmmee nag ci ay bés yu fi am yu mel ni ki bésu Serigne Saliou yu mel ni ki Gàmmo yu mel ni ki màggal Touba ak xeeti xew-xewu diine yu am solo yi nga xam ne taalibe yi fu ñu nekk dañ ko fay taxawee mu fi ñëw di fa teew di leen taxawu di leen tete di leen xamal naka lañ koy defee mm. euh, kon dafa am solo tamit day ñu jàkkaarloo ak moom ngir xam moom mooy kan fan la jaar biographie maanaam ak tukki dem bi muy ñëw ci taalibe yi maanaam njariñ gim ci am lan la ciy gis ci soppeeku yi ci taalibe yi yooyu xeet yu mel noonu yu am solo yooyu moom lañ bëgg a jàkkaarloog tey moom tey laaj ko ko muy Serigne Salih Amsa kon Serigne Salih Amsa tey dañ lay jox nga nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, sëñ xaadim maa ngi lay delloo ab nuyoo tey delloo ab tey tey nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ni ñoo ñuy diglu fii ci Argentine ba ci àdduna bépp ñu ma koy waxe ndax euh, média day al waa xeex la monde virtuel la ndax li yàlla nit yàlla yi eh, ya gën a mag li leen yàlla mayoon suñ borom may na ko léegi nit yi ordinaire yi ndax nit moo daa nekk ca Baxdaad wala mu nekk fu ne nit yàlla yi di gisante léegi fii ngay nekk di diggante ku ne Sénégal wala ku ne Matam wala ku ne Kédougou kon ñu ngi delloo ab nuyoo mboolem ñi ngi déglu ñépp sagam waxtu wi daa xat ndax jamono moo la jotul temps bu gàtt naa dañ lay delloo kaddu gi waaye ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare ba léegi rek euh, hmm. ñu xam ñu ngi toog ak Serigne Salih Mbacké hmm. euh, moom Serigne Amsadou Mbacké hmm. moom Serigne Abdoul Ahad moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, kon gannaaw waxtu wi dafa xat Serigne Salih dañuy tàmbalee rek Mm-hmm. maanaam ci Serigne Saalix tey suñ doon wax mm-hmm. kan mooy Serigne Saalix maanaam mm-hmm. euh, ci gàttal Serigne Saalix bi mu ganee àddina fan la dalee am jàng euh, ba ay jaar-jaari maanaam wàllu xam-xamam naka la tëddee ba jamono ji waaw jërëjëf sëñ Xaadim ci laaj bi nga laaj mm, ñu ngi ci sawar a tontu lool ndax fa shahidul xaali adlun eh, man maa ngi tudd Saalix Mbakke ñu tudde ma Sëriñ Saalix eh, di ñetteelu xalifab Sëriñ Tuubaa ñëpp xam nañ ko sama waajur di Sëriñ Hamzatu ibnu Cheikh Abdul Ahad di ñetteelu di ñaar wala ñetteelu xalifab Sëriñ Tuubaa Cheikh Taalix mooy ñeenteelu xalifa bi waaw maa ngi gane àddina ci daara yi sëriñ Saalix jàpp ndal ndax sama waajur daa doonoon ci jawriñ ya sëriñ Hamsatu sëriñ Abdul Ahad doomu ñëpp sëriñ Saalix la leen joxoon waaye sëriñ Saalix yoroon ci daara gi ñuy wax jàpp ndal jàpp ndal ak Mbàkke nag fanweeri kilomètre la sorewut sorewut ak Gossas foofu lañ gane àddina ba mata dal jàng ci ronu loxo yi Serigne Saliou lañ nekk bi ñuy tut tànk mosuñoo jug ci moom benn yoon ba dal ba dal jàng jot bi bi nga xamee ni man na maa dal jàng sunu waajur moo ñu ko nettali sëriñ bi bëggoon nañu bëgg koo xam ni buñ jàngee ci daaraam mën naa yàq sunu jàng ndax wax na ni ma sëriñ Saliou bu musaa ñëw dafa lay laaj ndax moom dafa bëggoon tu tànk ci moom ngay nekk sëriñ bi jël ma génn ma ci daara jooju yóbbuwaat ma ci jeneen daara ju dend ak daari sëriñ Saliou waaye daara jooju it doomi Serigne Saliou moo ko moom ndax tey jii mooy xalifab Serigne Saliou Serigne Cheikh la tudd falaa dem jàng fa alquran ba wàcc alquran dellusiwaat nag ci Serigne Saliou nga agsee ci Serigne Saliou mu yóbbu ma daara ju ñuy wax njurul njurul mi ngi ci yoonu xel ko xelkom diggam ak Touba fukki kilomètre la ak juróom falaa continuer sama njàng ba bind kaamil bind kaamil ñëw indil ko sëriñ bi mu bëgg ca lool ndax alxuraan la fa la fonkoon lool bëgg ko mm-hmm. waaw ndax ku la mën a jur ak koo mën a doon boo mukkalul alxuraan ci daaram daw boole ca mag ña dañoo wutoon daara joo xam ni dañoo maanaam boo demee ci daara ji ñetti téeméer ñi dafa new waaye ñi nekkoon mag ñi nga xam ne dañ leen baral ay togg beral leen seeni néegi bopp mooy ña mokkaloon alxuraan waaw noo mën a sant ak koo mën a doon moom loolu moom doo ci bokk waaye boo xasee mokkal alxuraan moo xam mbakki mbaw moom om la doon defar insaan moo ko ñoroon looloo taxoon mu fonkoon ñu lool teral ñu teraanga ju yaatu digal ñu nag ñuy jàng xam-xam di jàngale bi ñu delluwaatee ñu ñu nekk foofee bokk ci jëwriñ yi di jàngale alxuraan waaye di jàng xam-xam daara ju amoon na jàngkat jàngalekatu xam-xam boo xam ne day fekk fànn yépp fa jànge mboolem téere yi nga xam ni baaxoon nañ koo jàng ci majaalis yi diggante ngay tàmbalee ci risaala al axdari masalikul jinaan ba ni ngay jàllee ci tasawuf tawxid ba ni ngay jàllee ci al loxa al arabiya mel ni al burdatul madeex jëm ci saadatu tullaab mutamim al ajroomiya ba ibnu malik waaw alfiyatu ibnu malik yooyu yëpp falaa ko jànge waaye bi yàlla dogalee ma jàng ba eh, jàng téere yooyu ñu baaxoo jàng sëriñ bi ci boppam jël ma yóbbuwaat ma ci biir tuuba benn boroom xam-xam bu ñuy wax Mouhamadul Lamine Cissé ab Saalum Saalum la foofu itam jaar naa fa def naa fa juróom-ñetti weer ginnaaw bi bi ma fa jugee. waaw foofu maa ngi fa jàng lu mel ni balaaxa. al balaaxa mooy la li ñuy wax la rhétorique. Mhm. day jànge wax neexitu wax. Mhm. ak li tax wax rafet. bindkat moom la ñuy la rhétorique moom laa fa doon jàng balaa xatul waadix mm-hmm. danaa fa jàng it al usul usulul fiqh usulul fiqh mm-hmm. mm-hmm. ak eh, usul ak mustalahul hadis jàng naa ko fa bi mu fa jógee it dem naa ci boroom xam-xam bi ngeen di dégg bu siiw bi yàlla na fi yàgg lool te wér di borom xam-xam Serigne Abdourahman waaw waaw mu daarul moxti waaw moom itam eh, dem naa fa jàng fa fa laa tàmbalee jàng jawahirul iklim mooy xalil waaw moom fa laa fa laa jàng lu bare bari jàng naa fa li ñuy wax bayaan yàlla bayaan waaw ci moom jàng naa ko fa jàng naa fa it euh, foofa daan naa fa jàng français ci benn xam boroom xam-xam wala benn benn professeur euh, oustaz bu fa newoon nga xam ne da ngay bu ngoonee da ngay jàng boo jàngee ba noppi nga dem mm-hmm. jël fa ay leçon foofu daal xam naa falaa mujje samam njàng falaa jàng jànge ñu may tëralal ma jël beneen méthode jàng moom minal mahdi ilal lahdi ma jël beneen méthode di di yër di contacter ak borom xam-xam yi mm-hmm. di continuer di gëstu fu ma fu ma leen dégg di leen seeti di leen nemmiku ñu may tegtal téere yi nga xam ni moo ëpp solo mm-hmm. ma ma nekk ci nag loolu daal ci gàttal mooy sama biographie ci wàllum jàng waaw lool mm-hmm. euh, jaar nga fii mhm. doomu soxna yi di jaar mhm. fii doomu daara di jaar mhm. rampe tàmbalee ci mbaa yéeg ndànk ndànk tëral téere yu bare bare yu am solo masha allah eh, ci ñu ko tuddee maanaam ci wàllu majaalis bi xam ne daanaka Mhm. muy téere fiq yi ñu mhm. ko tëralee ak téere yi nga xam ne moom lañu mhm. tëral majalis ci wàllu luga daanaka soo ko tëralee téere yooyu yëpp lu bari ci xam-xam dañ koy daal di xam dañuy mën a gëstul sa bopp kon mu mel ni téere yooyu dafa am ay fànn yoo xam ne yu wute la lu mel ni tudd nga ci lu mel ni fiq moom ku ne xam na ni ab jullit mënu koo ñàkk a xam mhm, euh, tudd nga ci lu mel ni ilmul badaaxa mhm. xam ne daanaka ku bëgg a dégg alquran mhm. faw nga jàng faw nga jàng ko ilmul bayaan tamit mu doon xam-xam bu am solo usulul fiq tamit muy xam-xam boo xam ne bu mën a bàyyi xel la ndax lii di usul moom dafa am solo ndax bari na ñoo xam ne ñi ngi def ay ay waxtaan di mhm. ubbee nit ñi mhm. te fekk ne dañoo war a jëriwaat suñu mhm. fiq waaw am solo la nga tudd foofu kon xeeti xam-xam yooyu sëñ bi euh, suñu xoolee ba léegi tamit yaa ngi gëstu di wëyal sa gëstu ndax am jàng moom du arrêté kon maanaam ci sa xeetu xam-xam yooyu yëpp xëy na du ñàkk benn boo xam ne ci nga gën a fësal sa gëstu jàng ji ñu toog waaw nga xam ne mën nañ jàpp ne mooy sa taxasus waaw waaw ci la ci laa def taxasus spécialisé wu ci waaw waaw moom euh, yàlla dafa yàlla dama bindewoon man daanaka bi may doog a pare ab bindkat laa woon mën naa ne ab shaa'ir waaw adib laa woon bindkat dafa ma neexoon lool dama daan way sëriñ bi maa ngi fàttaliku way yu ma ko woyoon moom Cheikh Saalix euh, bi ma agsee euh, bi mu ko xoolee dani ma xanaa da ngay jàng as-suxaraaw al-jaahiliya maanaam adab waaw adab lu ma lu ma neexoon la ci laa gënoon ci laa gënoon di xuus ci ci ci wàllu adab al adab al arabi al adab al jaahiliya nga xam ni dama daan jël euh, suxaraaw yi di leen comparer di di di ci bind naan kii moo dàq way kii moo def lii kii nangam ak nangam loolu nag xuuse woon na ma ba may lijjanti ak taariq xam nga xam-xam boo dugg rek daf lay daf lay jeñ daf lay daf mu ci nga da lay puus ci nga jël beneen mm-hmm. ma ma loolu moo ma poussé ma dem ci taariq mm-hmm. bi ma duggee ci taariq ma gis ni ndekete culture rek la waaye maanaam problème wu dëkk la mm-hmm. al bia environnement la waaye culture yi ndekete ñun am nañ culture yu riis muy l'islam suñ mi loolu moo ma yóbbee it may gëstu histoire mag ñi mag ñi mag ñi may gëstu histoire yoonu murit may gëstu histoire ñi àndoon ak sëriñ bi euh, dafa mel ni daal ci wàllu taarix histoire yi man fi mu ne nii ci laa ëppal doole sama gëstu ginnaaw ba nga xamee ni récupéré naa jumtukaay yi nga xam ne man nga ni jaasi la pour mën a xóotal sab gëstu waaw man nga ni man ci wàllu histoire yi ci laa ci la ëpp may lu may lu may gëstu lu jëm ci wàllu mag ñi ndax

sa ndono réer la te ku fàtte sa ndono doo am foo taxaw te ku amul foo taxaw dangay ngay yóbbu ba max waaw ci foofu kon mu mel ni euh, ci sa wàllu gëstu ci mag ñi nga mujj taxawee daanaka ci la ñuy taxawa mhm. ndax euh, mag ñi mhm. euh, comme gëstu mag ñi boobu nga wax mhm. dafa jot maanaam génération bi daal di fay dellu maanaam xele yi yëpp dellu ci gisuwaat mhm. mag ñi mhm. ndax dafa am lu am solo mhm. ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne ñu ngi wëri ay référence beneen di roy yoo xam ne nii maanaam du suñuy aada du suñuy cosaan xamuñu ko woon kon loolu nga jàpp ne xëy na ñàkk gi ñu ñàkk xam suñu mag ñi euh, moo ko waral wala lu euh, mu dem waaw waaw loolu xam nga fi tom bi ma daaneelee dafa mel ni fi nga bëggee ma déparé ndax nee naa la la ko sëñ Abdou wax mooy ku xamul foo foo ku fàtte sa démb sa tay de ku sa tay réer da yomb ba ñàkk xam sunu bopp ak ñàkk xam li ñu am moo waral ñuy jëggaani leneen waaye boo gëstoo histoire dëgg-dëgg kenn gënul li ndax nun xam nga ku ne xam na ne lislaam euh, mi ngi dugg ci Sénégal jaar xam nga Afrique gépp xabas Éthiopie waaye booba Éthiopie yemutoon fi ñuy wooye Éthiopie booba Syrie ci la woon Soudan ci la woon foofu fépp ci la woon mu nekkoon lu yaatu mu rabitone yi daan takk ay gëléem mm-hmm. kon ne xam na ni baatu maarabu fi mu ne am na ñu naan maarabu ci mooy am picc mm-hmm. ci la bàyyi ko mais loolu demiwut noonu mm-hmm. mu rabitone yi mooy ñi nga xam ne dañ daan takk ay gëléem mooy naari di jugante wala Niger dex gi topp ba ak si Mali Mauritanie ba ak si Sénégal mhm. ñoom dañ daan ñëw ngir commerce comme ni ngeen ñëwee fii ngir jaay si rek mhm. ba am ñu ñu dugg ci lislaam ñooñu ñooñu ñoo daan ñëw di commerce mag ñi gis ni ñii ñu baax lañ diine ji diine di jub la mhm. ñii kat seenum seenum njaay dëppoo naag li lislaam wax isa tadayan yaa yo isa tadayantum bi dayn ilaa ajali musamman faktubuhu wala yaktub baynakum kaatibun bil adl parce que diine bu nekkee ci yow lu baax ngay wax di ko def ay axlaax yu rafet yooyu mhm. taxoon na mag ña gis ni ñii kat ñu baax lañ mhm. jaayante ak ñoom topp leen mhm. kon murabitoon yi tubaab yi gis ñii ñuy takk ay gëléem ñu dem ba gisati kuñ takk nga kaalawul rek ñu lay wooye murabit ñu yàq baat bi naan maaraam waaye foofu la bàyyi ko kon ñooñu biñ ginnaaw biñ jemee mag ñi dañ leen fekk ci ay culture ak ay aada yu baax ñu daan mokkal alxuraan daan bind ay adab kon ku xam na Euh, Cheikh Omar Foutiyu Taal la tàmbalee ca cosaan la ba ba jàll dégg nga ak mboolem ñi nga xam ne rek ñuñ naw lañ ba agsi ci mag ñi Cheikh Sidil Alhaaji Malik ba agsi ci Cheikhul Xadim ñi nga xam ne ñoom ñooy génération bi mujj ci réew mi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk la nga yor lu set la lu rafet la loo xam ne boo ko gëstoo ba xam ko ci ngor ak ci diine ak ci tegu ci njub loolu boo ko xamee dëgg-dëgg da nga rusa jëfandikoo leneen lu dul li nga am ndax lépp ci diine la ju sell ju rafet ak ñàkk complexe ak xam seen bopp ci leen jëfandikoo lépp tege ci sunna nag booy seet sunna dëgg dëgg dëgg boo koy wër ñëwal wër ko ci mag ñu baax ñi waaw ci foofu ku ne xam na comme ni ko waxee maanaam kilifa yooyu dañoo tegoon seeni tànk ci sunna mhm. euh, ci di ko doxal mhm. ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ko doxale mhm. di ko di dundee ni yonent bi daa dundee ñu mhm. euh, dem ba suñu jamono jii maanaam sama génération nouvelle génération bi dafa mel ni am njàng dañ ko génne ci seeni programme comme ni nga ni nga yow sa biographie bulus bi macha allah Euh, fi mu jaar mu mel ni léegi kon dafa bari ñoo xam ne dañoo dañoo jàpp ne loolu dafa gudd mm-hmm. léegi li gën a gaaw ci ñoom mooy mm-hmm. soo juddoo mm-hmm. fexeel dugg école yóbbu la école français nga jàng français ngir nga am loo texee kon ñu mel ni lu mel loolu te tubaab yi su duggee ci français école français yi seeni bopp la ñuy jàngal ak seeni culture ak seeni mag ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñu fonk kon mu mel ni dañuy fàtteloo ñun ci suñu suñu cosaan mhm. di ñu fàttalee suñu mag mhm. kon soo doon joxee proposition tey ngir lu mhm. mën a dimbi loolu lu mën a dellu si jeunesse yi pour ñu jéem a jublu ci xam-xam xam seeni mag ñi ku ne xam maay kan li ñuy naan rokku maay kan ku ne xam boppam sa bopp waaw li ngay toogee naan Faidherbe bu nii naan wax histoire am yow nga mën a toog wax noonu sa histoire loolu ban proposition nga teg waa jërëjëf da ngaa laaj laaj bu am solo ndax euh, Sëñ Tuubaa dafa wax loolu lépp lu ñu dal tey jii ñàkk xam suñu bopp ak ñàkk gëstu dëddu xam-xam Sëñ Tuubaa nee na benn defet rek laa nangu ni Iblis gañe ne ma ko wa min makaidil aynil mujrimi saddul muridina ani tahallul nee na bokk na ci pexey seytaan yi nga xam ne réussite na ko mooy murid yi nangu ñoo jàng ñàkk nangoo jàng lu ñu dal moonu ko yóbbu waaye yëmut ci murid yi képp Sëñ Tuubaa bu nee murid képp ko nam yàlla la jub maanaam ñëpp rek jullit yëpp moo tax loolu yi nga wax day lu am solo gis nga euh, les colonialistes avant ñuy ñëw réew ma avant ñuy ñëw senegal dafa am ay missionnaire li ñuy wax missionnaire buuru Paris dafaa yebal euh, roi ba dafaa yebal ay missionnaire pour ñu pour ñu jàngat réew mi jàngat nit ñi bi ñu agsee liñ njëkk a wax mooy ñoom day am nañ benn langue boo xam ne wolof lañ koy wooye làng bu riche la boo xam ni bis buñ fexee ba ba ba ba daaneel ko rek jox leen seenu langue rek mën nañoo am liñ bëgg waaye bis bu ñu jëlee seenu langue bàyyee leen ko rek danañ ñu demine te liñ bëgg def ci seen bopp yi mën a nekk kon nañ leen fermenté génn li nekk ci seen bopp ba mu set wicci ñu def ci ñoom li ñu sopp loolu mooy tax liñ bëgg ñu am ko kon def googee dañ ko reesi liñ bëggoon am lépp dañ ko cee def léegi nag problème bi mooy sagam ñoom def nañ jàngal ñu bu dee ab tubaab jàngal nañ ñu seeni seeni seeni i seen mm-hmm. nangam nangam mm-hmm. seeni i yii jàngkatu tubaab gëmloon waaw amuñ histoire mm-hmm. gëmloon nañ seen démb bu baaxut yéen li ngeen yor baaxut te yàlla xam na ni senegal la fa baax bu ñu waxtaanee la fa ëpp solo ñan ñoo ko def tukkikat yi yéen ñu nekk ci àll bi day ngàcce galaam la baax Sénégal yéen ko fa def dëkk boo dem ci senegal mu développé ah la fa baax yéen a ko fa def ku ne sa dëkku ci saan boo xoolee tabax yi fa gën a rafet bitig yi fa gën a rëy tukkikat yi ñoo ko fa def du jàngkatu tubaab de jàngkat tubaab kay lu mooy nekk ca bureau ya di seeni seeni seeni seeni kii tappale rek yàlla ma yàlla baal loolu du problème ci ñoom mais seeni kilifa la ñi leen jàngal tappale fexe ba not nit ñi ba napp leen loolu la waaye liggéey dëgg-dëgg saalum saalum yeeg bawol bawol yi kajoor kajoor yi mm-hmm. la baax Sénégal ñoo ko fa def waaw loolu day li waral lool day dellu si ci waxu saaxay bi mm-hmm. ne al ummu madrasatun sa ahdat ahdat waaw Ahmadu Sawxi waaw kon soo xoolee mm-hmm. maanaam kon li nga wax day dellu si ci woy boobu maanaam kon ñun lii suñu problème bi gën rëy mooy dañoo jël maanaam suñu école yi nga xam ne moo war a defar suñuy doom. Mhm. te defar suñu société ba bu baax. Mhm. dañ kaa jël jébbal ko tubaab bi. Mhm. ne ñu ngi noonu. ñu ngi noonu tubaab bi nag xool fi mu bëgg ñu jublu fa mu jéem. mu orienté ñu fa waaw kon ngir génn ci loolu kon tey. ban solution. waaw soli solution bi bi ñuy jël mooy solution bi sëñ Mountakha jël tey jii woote na benn école boo xam ni 37 milliards moo koy defar. 37 milliards gis nga boobu bu paree kenn du jëggaaneeti dara parce que xam-xam moom matière la rek langue ak xam-xam CFD waaw 37 milliards boobu euh, école boobu mu wootee nga xam ne solution la mhm. na ci àdduna sëpp jàpp mhm. na ci Sénégal gépp jàpp mhm. te xam ni bis bu àggee bis bu ko récité ñooy jàngalal suñu bopp yaral suñ bopp parce que li ëpp importance mooy yar bi parce que université waaw lépp looy jàng ci àdduna ak foo mën a nekk foo mën a foo mën a jëm loo soxla ma nga ca daara ji benn rek mooy gëm suñ bopp xam suñ bopp jàngal suñ bopp dégg li nga xam ni liñ naan euh, tubaab bi mu fi def lu naqaree lu fi lu naqaree dindi lay doon nag ndax suñ tubaab waxoon na ko Lat Joor ni ko Lat Lat Joor booy boo nga booy boo nga muñ rek tubaab bi yàlla mi ko fi teg daal heure bu ko jeexalee mu jeex <laughs> waaye nag solution mënta ñàkk mooy li sëñ Muntaxa def ñu woote université boo xam ni lépp nga ca macha allah yàlla na yàlla na ko yàlla àggale ak jàmm te te te yàlla def ci xewal man daal loolu laa gis ci solution bi mooy université bi ñu góor góorlu ci defar ko tam te ñeneen def ko ñeneen def ko faneen def ko ba mu daj réew mi doomi soxna yi ñoom itam nañ dem sampi daara ba bañ a mel ni mën di wëndeelu parce que maanaam jàngale jàng ak jàngale mooy ndonali mooy li nga xam ne moom lañ ñu fi bàyyee mm-hmm. saa suñ ko fi bàyyee ni ko fi ñukku mm-hmm. ñeneen ñi nga xam ni ñoom lañu war a jàngal ku leen di jàngal mm-hmm. kon maanaam defaraat jikko yi d'abord moo jiitu ndax day lu am solo ci ni nga ko waxee léegi ni ko Ahmadou Shawqi waxee dégg nga mooy jikko yi nga xam ni euh, innama umamul axlaaqu ma baxiyat wa in humu sahabat axlaaquhum sahabu kon loolu mooy mooy mooy mooy sama gis-gis mooy defaraat daare yi maanaam daara yi nag kenn ku ne fa nga ne ngay defar mhm. sëñ mun taxaa mu ne di Touba mhm. woote na fa lu tolloog la muy def mhm. yéen ñi nekk fii ci Argentine woote leen fii lu tolloog li ngeen def gis naa leen ngeen yi tabax kër sañ tubaa bu ngeen noppee def leen fa daara doom yi ngeen fi am ñu fi gane àdduna ñu fi judd ngeen jël boroom xam-xam yi nekk fii di leen fay ñu fay jàngale tem ñor leen ñene ñene Brésil nañ def noonu ña ne Porto Alegre def noonu ña ne Caxias def noonu ña ne Cordoba fenn fu nekk daal bu ñu defee la leen war waaye kenn ku nekk boo toogee naan diwa war a def nangam da ngay dem ci diw diw ni la diwa war a def nangam maanaam li murid yi maanaam wala ñëpp sax problème bi ñu am da ngay da ngay da ngay da nga naan Macky Sall daal moo war a def nangam wala Sëñ Muntaxa war a def nangam maanaam tudd kilifa nga dem ci kilifa googu mu lay jàmbat problème léegi luy solution bi solution bi mooy ku ne def la la war kon maanaam suñu déggee daal. ku ci nekk day dafa am responsabilité boppam lu ñuy naan masuuliya boo xam ne masuuliya. Hmm. yow dafa war ci yow. lu mel ni masuuliya boobu yow dañ koy daw. Hmm. bëgg kaa sëf keneen. waaw maanaam comme man masuuliya bi ma war a yenu. dama kaa jël ne sëñ bee ko war a yenu. te fekk ne man maa ko war a yenu. man ko kon muy lu am solo. Hmm. kon dafa mel ni. dangay woote waat kon jeunesse bi. ci ab jàngiwaat ci xam-xam. ci xam-xam waaw ci gëstu ji waat xam-xam. rawatina xam-xamu diine. waaw. Euh, ndax mooy lépp. Mhm. mooy foog comme fi nga ko wax rek. maanaam mhm. ñu fàttali ne. Mhm. suñu xoolee yenn xeetu xam-xam yi. muy mathématique. muy philosophie. xam-xam la yoo xam ne ñu ngi koy askanel tubaab bu baax waaye soo xoolee. ba ci biir da gis ne. xam-xam la yoo xam ne jógewul ci tubaab ci arab yi la jóge mu mel ni sëñ bi euh, dafa mel ni yow. Euh, da ngaa jël maanaam di tukki ci. maanaam diaspora bi. seet si taalibe yi. di leen gën a nemmeeku ci seen njàng ak di leen gën a yee ci diine mhm. kon sëñ bi dañ la doon laaj lan moo la motivé ci mhm. génn gi ngay génn ci diaspora waaw man nee na la bi ma jàngee ba noppi li ma njëkk a def mooy dama yoroon daara di jàngale mhm. di bind boole ci waaye nit ku nekk dafa am wijhatu nasari boppam dafa am gis-gisu boppam ma gis ni lii ma nekk Touba ñu bari ñu bari ca lañ ne ñu bare nga ca ñu ma ñu ma ëpp xam-xama nga ca te itam li may bindit bu dee njàngale ma ñu bare nga ca mbind mi it gis naa ni li may bind nit ñi ñu ci bari duñ ko liir duñ ko yër ndax ku ne bind na fi ma gis ni it sëriñ bi bind na dëgg la bind baax na kenn ku nekk fa nga toll rek beel bind te maa ngi continuer sax ndax tukki bi may tukki lu ma romb lu am importance dinaa ko bind gëstu ko barki dem maa ngi koy wax Brésil bi ma ñëwee foofu ma gëstu ñu ni Brésil cent millions ñoo fa ne. Mhm. cent million yoo xam ni 1 pour cent ñoo fay ay jullit. 1 virgule 0 pour cent sax matul sax 1 pour cent. 200 millions 1 million ay jullit ñoo fa ne te li ci ëpp ñu ngi bàyyi ko ci euh, boor yi. Euh, mooy commer commer commerce yooyu. te mu nekkoon candidat xaddaa Brésil candidat la woon mooy commerce Liban ay libanais. yu fa ëpp dégg nga ak diggante Sénégal yi. Mhm. Brésil li muy rëy rëy maanaam la fa nekk ci jàkka 40 la ci ñaata. 27 états 27 états. Mm-hmm. kon. li ci ëpp la ci ëpp man fukki jàkkee man nga ni ma nga Sampolo la ci des ma nga diggante Porto Alegre ak Sulba ak yooyu. Mm-hmm. loolu day lu xaw a doy mm-hmm. loolu nag man ma gis ni réew yu toll nii Sénégal yi ñu ngi fu ne. te la ngay dox di bind ma gis ni am na waneen yoon wu fi ne. ci at mi ma njëkkee ñëw fii damaa gis dëkk bi dem naa ci daayira yu bari mhm. da ngay toog ci dayre ba jóg waxu xaalis képp lañ fay wax mhm. doo fa gis ñu wax lu jëm ci diine doo fa wax lu jëm ci sëñ bi ma ni nag man sama sama mission mhm. ndekete des na ndax fii nit ñaa ngi fi xëy na ay borom xam-xam a ngi fi waaye euh, seen itte jëmalewuñ ko ci lii ndax yow mi ma fekk borom xam nga ñeneen noonu ñu ma raw ñu ngi ci dëkk bi waaye nag seen itte xëy na dañ koo jëmale ci leneen ma ni comme ñu bari jëmale woon seen itte ci lii man naa jël sama itte jëmale ko ci lii di waxtaan ci daayira yi di sensibiliser nit ñi di leen xamal njàngum sëñ Tuubaa di leen yee ci seen wàllu adduna kem li ma xas xama ko si néew sama kémti laay kartan te itam yamut fii def naa ko Europe damay dem Italie dem Espagne dem Portugal ndax man fii laa fii laa mujjee ñëw Europe laa njëkk a dem ci fii ginnaaw bi ma demee Europe bi ma ñëwee fii laa gis ni euh, wax dëgg yàlla fii itam aaje na moo tax ma gën a samp fii gën a suuxat samay samay tànk fii waaw mu mu doon lu metti nag waaye nag lépp da ngay jaayante ak sëñ Tuubaa rek. te xam ni sëriñ bi moom boo ko dee liggéeyal boo nekkee ci lu baax. Mm-hmm. nit seen bopp ñooy mu jël seen seen itte jëmale ko ci yow. Mm-hmm. waaw te ndax nit ñi ñu bëgg lu baax lañ. Mm-hmm. te njëkk nga koy xam nga won leen ko nit ñi bëgguñ lu dul lu baax. boo gisee ñu bari téye seen bopp wala yu demee noonu dañoo gisut lu leen doy. waaye koo ci tàllal lu baax bu ko gisee bu xoolee ba doy kenn dufut dana ko jël waaye nag joxin wa dafa am solo mm-hmm. loolu moo waral sama sama sama sama génn di ñëw ci kon su la déggee daal maanaam sa génn bi mm-hmm. gën toog xalaataat ñu mhm. jubluwaat ci xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ballighu anni walaw aayatan mhm, mhm. daal yow mën nañ dégg ne ci tabdir boobu nga nekk ngir mu yaatal diine bu ko wasaare wax ñu la ciy ñaanal suñ borom jàppale la ci ba bépp yéene boo ci am foo bëgg mu àgg suñ borom àggaleel la fa nga fiy tuubal ay tubaab yu baree baree bari ndax li nga wax dafa am solo mm-hmm, mm-hmm. dëkk boo xam ne soo seetloo ña fa nekk ay julli daanaka ñooy mm-hmm. ñun immigré yi waa dëkk bi liñ ciy tuub lu néew la dëgg yàlla ba léegi tamit sëriñ bi euh, du ñu toog ak yow jotaay ba noppi du ñu la suñu situation réew situation politique bi ni mu demee jamono ji ñu toll ak maanaam niñ ciy dugale diine beeg xeet yooyu maanaam yow situation politique bi nan mm-hmm. mm-hmm. waaw man politique nag xam naa bu dee lu jëm ci wàllu lu jëm ci diine ak politique dañoo laalante mm-hmm. ba tax na boo dee yëngu ci diine faw nga xam ci dara ak doonte defoo ko muy sa métier dañoo laalante histoire naka jekk nii la dañoo dañoo lëkkaloo ndax benn boroom xam-xam day wax ni euh, adduna lépp politique la mhm. waaye politique yi wi ñuy jël di ko ñaawal mhm. Ibnu Xaldun moo wax loolu mhm, yaa ngi wax léegi yaa ngi wax léegi ni li ñuy wax ilmul ijtimaa xam-xam yu bari dañ ko sàcc ci jullit yi ndax ku ne xam na ni histoire bi amoon ci Espagne Andalusia boroom xam-xam yi bañ leen jekkoo lañ ca xam ñoom tubaab yi ñu jël ko lañ ca xamul ñu lakk ko téere yu bari ci lañ leen lakke kon tubaab bi xam-xam yu bari mel ni géographie mhm. ak ak lu ci mel ni mathématique mhm. bi nga xam ne fu adduna àgg tey lépp daanaka ci xam-xam boobu la yooyu yëpp ñu ngi ko jëlee ci lu julli julli moom moo wax loolu mhm. mu mu mel ni politique defin wi ni ñu koy defee dafa xaw a ci Sénégal ndax bu fekkoon ni euh, jikko yi yàquwut doomi soxna yi démb xam nañ seen bopp dëgg dëgg dëgg mission mm-hmm. bi nga xam ni moom la leen seen maam bàyyee xam nañ ko dëgg dëgg dëgg mm-hmm. su boobaa politicien bu ñëw dana def la ko war ci mbaaxu seeni maam mm-hmm. ak respect bu ñu leen respecté bukki dañoo wax ne gaynde bu yebee bukki ca doxin wala te kilifa diine bu politique c'est yilif mënoo fexe ba def ba ba mu defal la li nga bëgg loolu tax na ba situation bi am li ko waral dama koy wax ñëpp xam nañ ko mooy yenn mooy ñenn ci kilifa yi diine yi dañoo jàng topp leen Sëñ Tuubaa dafa waxoon ni na ngeen jàpp seen diine ji ndax nitu àdduna soxlawul dara ci diine kon na ngeen bàyyeek àdduna ak seen waa àdduna waaye seen diini ji na ngeen ko téye te ni nga xamee ni waa adduna bàyyee nañ leen seen àdduna soxla wuñ ko xasanul euh, basari yi dafa amoon sumuuq niti àdduna yi buñ ko musaa gis dañuy rappi rappi di daanu ñu ne lu ko waral mu ni euh, euh, istaxnit bi diini an duniyal muluuki kama staxnal muluuku bi duniya ani diin waa adduna da nga leen di seen waa adduna comme ni nga xamee ni ñoom dañ leen di bàyyeeg seen diin bàyyee nag du caaginu da ngay toog jàpp say loxo déedéet mooy sa mission danga koy def boo waree jàngale nga jàngale mhm. soo waree wax ak taalibe yi nga wax ak ñoom mhm. soo waree créer entreprise sax nga def ko waaye nag bu dugg di politique ngir wut xaalis ak yu demee noonu mhm. xaalu li yar kan li abwaabi salaatin taxus dawa isa tox ni kulla ma ayn fa qultu hasbi rabbi waktafaytu bihi walastu radiya xayral ilmi wa diini man xam-xam ak diine képp laa soxla te suñ tubaab booba position boobee pourtant suñ Mor Anta Sali bi mu laqoo nga xam ni euh, kooka moo amee moo nekkoon njiitum réew mi ñu ni ko demal ànd ak moom waaw comme ni sa waajur daan ànd ak moom xool leen la mu leen tontu lu mu leen tontu waaye dañoo mujj sax naan ko da ngaa dof waaw li sarfi anhum basari mhm. ngir ñàkk gu ma ñàkk soxla mhm. mbirum àdduna moomee loolu nag li fi yëg ñi ngi topp ci ginnaaw waa adduna di rappi rappi mhm. ay jàmm dong la ñuy doon duñ tekki dara te taalibe yi topp ci ginnaaw it duñ leen soxlaal ndax nit ki bu mën bu bu bu respecté wul sa kilifa mënoo fexe ba mu respecté la moo tax taalibe yi ci bari ci naqar la ñuy dëkk ndax lan moo waral loolu mooy ñenn ci kilifa yi dañoo topp ci waa àdduna di rappi rappi mhm. ndax taalibe yi lu yor indi mhm. lu am indi man xam naa ci dara lu ñu yor sëñ bi lañ ci njëkk a xalaat waaye léegi ke la defal lool lan moo la war yow lu dul dem samp daara di jàngale mm-hmm. jël mission bi xoolal doomi sëñ Tuubaa xoolal sëñ Murtada xoolal fu ne taxaw na fa ci àdduna taxawal ay daara mm-hmm. samp ay école xoolal sëñ sa Saliou mm-hmm. bi mu demee ba am 90 ans 80 70 ans ci la xel ko nga xam ne bu fekkoon ab tubaab la ci retraite ngay toll tey ah nga créé fukki daara ak juróom gor ko xoolal ñooñu fañ tolloon ñooñu bu fekkoon roy nañ ci ñoom jamono ji ñu toll danañ dem waaye lii lii problème bi mooy mooy mission bi ñu ci ëpp dañoo jàng ànd ak ñu ci àdduna yi donte foofu suñu la fi dégloo day dellu ci référence bi ñu doon wax képp loolu la wax dellu ci référence bi ñu doon wax ci njëlbeenu wax ji waaw ndax référence dafa am solo si lépp mm-hmm. kon mu mel ni ba léegi maanaam ci su fekkee ci situation politique bi mm-hmm. euh, ci jàpp naa ne xëy na kilifa diine gi muy kiy dund diine gi hmm. waruñu bàyyee ak ñi nga xam ne hmm. ñoom nekkuñ ay nitu diine réew hmm. mi cent pour cent parce que suñu leen fa bàyyee mën nañ ñu fa defal lu diine nanguwul waaye ba léegi kilifa diine jàpp naa ne xëy na war na mën a politique waaye ci man anam waaw kay kilifa diine war naa mën a politique bu fekkee ni euh, li ko yàlla jox xam na ko mu ne ca la ko war orienté mbooloo ma bañ déggal ko su boobaa su élection ñëwee sañ naa xool li gën ci nit ñi mu orienté leen ca ndax kiy jébbalu dina naan jébbal naa la sama bopp addina àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tare ma bàyyi waaye nag Sëñ Tuubaa dafa wax ni bu leen topp nit ci bakkanam képp koo xam ne daf laa topp ba jiital la ba képp koo xam ne daf laa digal bànnee nee na na ngeen lànk fa kullu man Euh, damay fàtte bayit wa euh, xayral ilaahi addal la kaa daf lay réeral képp koo xam ni daf laa tegtal lu dul yàlla nee na daf lay réeral loolu mën naa nekk ci kaw li ma waxoon léegi sëriñ bi góor góorlu orienté ay taalibeem ci kaw mu digal leen la sëñ tubaa dégle ak la sëñ tubaa santaane ak la yàlla santaane danañ xam ni njariñam képp la sëriñ bi bu digalee ay taalibeem danañ xam ni kii njariñam dong moo tax suñ njariñ képp la waaye nag su fekkee sariñ sa njariñ la su boobaa doo ko sañati te politicien bi dalul respecté ti kon kilifa diine sañ naa dugg ca terrain ba di digle di tere sama gis-gis sax man sañ naa dem sañ naa sañ naa taxaw sax ni diw mii damaa bëgg ngeen wooteel ko ci sama gis-gis waaye loola day fekk muy njariñul nit ña di seen intérêt waaye pas njariñul boppam waaw suñu waaw kon kilifa diine wala nitu diine sañ na mhm. politique sañ na laaj réew mi sañ mhm. na désigner kenn ngir ñu mhm. jàppale ko waaye ci kaw muy loo xam ne intérêt këma lay doon waaye du doon intérêt personnel kon wax dëgg muy lu am solo kon ñu fàttali ne Serigne Salih Mbacké xam sa lañ fi invité woon tey hmm. di nga waxtaane ak moom ci ay jaar-jaaram hmm. euh, ñu ngi jégalu nag ci waxtu guddi bi ndax xam nañ ne jot moom amuloo ko hmm. surtout ma soo ñëwee ci diaspora bi lépp dañ lay daal di soxla euh, ñun lay sant di la gërëm ci sa waxtu wi nga xam ne jox nga ko euh, ñu ci am mbégte lool bokk ak yow plateau bi kon sëriñ bi ñu lay laaj lan ngay tàggatoo waaw sëñ Xaadim maa ngi sant bu baax mboolem ñi nga xam ne ñoo ñoo ñu doon diglu Eh, di dogal ngant te yi nga xam ni doomu aadama mënut a ñàkk muy juum mm-hmm. dégg nañ ko ci kàddu gi lépp rek in uridu illa al islaah mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah mm-hmm. lu baax rek lañ ci jublu mm-hmm. ak laa biire eh, waaye li ñuy tàggatoo rek mooy di gën a dénkaat mboolem ñi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi ak bitim réew ak fu ñu mën a ne ci àdduna bi ñu gën rawatina nag ñu ne fii ci Argentine ñu gën a wóolu yàlla gën a doyloo yàlla gën a xam liñ am bu baax ndax ala bi zikrillaahi tanma innul xulub lii tax nit am conscience conscience tranquille du xaalis bu bari du oto du soxna te balaa ñu koo xam mooy yow mii walla man mii naa dem bëgg jënd këru 100 millions du tax ma noppalu maa ngay soxlawaat naa maa ngay fexe nu ma ko nu may fexe ba entretien ko yeneen problème wala oto 100 millions wala soxla sa gën a rafet boo ko amoon yaa ngay soxla noo ko entretien ba ba ba du rëcc say loxo di di xool ay bëgg-bëggam kon loolu du du dal xel lii dalal xel loolu mooy gëm yàlla ak doylu loolu maa ngi koy wax ci diggante dëkk bi ni mu naqaree ak fi mu toll nii ñu bari sax ku ndaw ku ne yaafus nga nit su fekkee ni da nekk ci barab mm-hmm. muy neex ba mu yàgg muy jub da sant yàlla te muñ te loo xaar rek suñ borom danaa fekk situation économique képp la mm-hmm. du lenn lu dul économique te loolu day am fu ne am na fa Europe mm-hmm. ba ma fa demee 2011 metti woon na lool 2012 waaye ren ji ba ma fa demee lépp changé na ñi amutoon liggéey sax léegi dañuy bàyyi seen liggéey ngir jaay ah. Europe àgg na foofu te maa ci teg sama bët fii itam situation boobu bu mu tax nit ñi tiit nañ gëm yàlla xam ni am nañ yàlla te bàyyi jàmbat gi te gën a góor góorgóorlu te muñ te te sabablu ndax jàmbat gi fajul dara dégg nga yow alxuraan ñaata yoon nga gis suñu borom julli ci ñaari yoon benn bi yonante bi la bi ci des muñkat yi inna allaha wa yu yusalluna ala nabi ak wa bashiri saabirina allazina isa asaabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma mm-hmm. yi yàlla julli na ci ñoom mm-hmm. kon nañ muñ te suñ borom kiti situation bi mën naa critique suñ borom dafa amul logique mën nga mën naa critique ba nga ne tey at mii moom dana naqari lool fekk mooy dàq mooy gën a neex mm-hmm. kon yàlla na gën a neex at mii yàlla na dàq at yi weesu ak lu nit ñi tiit tiit yàlla mën na ko mm-hmm. yàlla na wëlbati carte gi rek mu neex barke sëñ Tuubaa li sëñ Muntaxa wax mm-hmm. day gën a baax di gën a neex ba àjjana yàlla na ko yàlla def barke sëñ Tuubaa jërëjëf ñu nekkoon ak Salif Mbacké moom Sëriñ Amsa mhm. moom Cheikh Abdoul Ahad mhm. moom Xaadimu Rasool euh, doon waxtaane ak moom ci biographie mhm. kon wax dëgg muy waxtaan bu am solo ci tënk rek ñu mën a xam ne ci liñ fi waxtaane ñu mën cee jàpp ñaari point yoo xam ne yu am solo la yuñ mën a bàyyi xel la muy ñun jeunesse bi mu dellu wuti référence dellu référence ci suñu mag ñi ndax am nañ ñoo xam ne doy nañ ñu ay royukaay ñu bañ a toog ne diw kenn mënu kaa waaye nañu jéem rek nañ ne ca yoon wa rek bi mm-hmm. mm-hmm. ci toog mooy wàllu xam-xam boobu mooy wax wàllu mm-hmm. jàngiwaat kon ñaar yooyu rek jàpp naa ne suñu ci tënkoo sëñ bi euh, lépp luñ fi am ci ay gàllankoor ay jikko yu yàqu yu hmm. yëpp jàpp naa ni loolu lépp dana changé hmm. kon ñu lay sant di la gërëm Serigne Salif Mbacké Amsa bu hmm. nekkoon fii ci Touba Argentine TV yéen te téléspectateurs yi ñu leen di jox dig dig daje ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ Xaadim